Famara Gnassi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yàlla madame Moreau voilà Famara Niassy nga nekk analyste politique ñu tàmbale ci ab euh, question d'actualité soxal euh, mbirum coalition Yewwi Wallu ñoom nag dañoo fas yéene euh, teg ñetti groupe parlementaire tey ji ñu lay laaj ban jàngat nga am ci stratégie bu Yewwi Wallu ci assemblée nationale jërëjëf soxna si fi ñu tàmbalee suñu waxtaan moo di tey euh, mbirum assemblée xam nga assemblée nekkoon na loo xamante ne benn sénégalais wala ñu loolu ñoo euh, gis seen bopp ci euh, doxalin assemblée ak taxawaay député donc ta député dem na ba nekkatul dara dafa mel ni dem nañu ba mit bu nekkoon mooy li nekkoon cofeel ci député nekkatu fa parce que li ñuy gisoon ci douzième législature mu nekk ay député yoo xamante ne dañuy toog foofu di saagante di xuloo di rambaaj di nekk foofu lu ne ñu gis leen yaakaar ne treizième législature ñoom euh, dégg nañu euh, yuuxu wàllu euh, population bi parce que ñoom ñooy représenté population yi ci yu bëri donc ñu ñu jóg tamit ñu yaakaar yaakaaroon ni ñoom mën nañu changé la donne mooy xoolaat seen bopp xam ni député Euh, nekkul lu caaxaan député alal lañ koy fay député moom luñ koy jox pour euh, mu mën a euh, mu mën a liggéey bëri na de telle sorte que buñ ko waxee sénégalais yi kese kese ñoom dañuy tiit donc député boobu mënul toog comme lu ñuy dëgg président législature député taxaw mu ne man député président diw la man député région bii la man député waaso bii la man député Euh, par exemple euh, religion bii la wala man député euh, comment dirais-je confrérie bii la donc yooyu ñu koy dégg wala moom sax ñu koy incarné ñu ne foofu di poñante di xuloo di xeex ci kanam ay xale yu ndaw yoo xamante ne am na ñu bëri ñoom dañuy jàpp ne bëggoon naa jàng tekki ba mën a nekk député ci sama sama sama dund mais ñoom xale yi suñu doom yi sax dem nañu ba ñoom xamatuñu lan mooy député ñoom dañu jàpp ni sa député ak sol euh, grand buubu bu rëy ñett abdu nekk foofu di teesante di saagante donc dem na ba député nekkatul dara kon sénégalais yi dem ba ñu ne non lii il faut que ñu ñu taxaw ci ñu taxaw ci puisque ñun ñooy jël suñu xaalis di tey fay il faut que député bi nekk am beneen xarkanam xarkanam boobu la ñu wone ci euh, élection législative yi ñuy jógee nii ñu def ci mbir euh, mbirum équilibre dem ba may waa Benno Bokk Yaakaar majorité du majorité sax quatre-vingt-deux députés waa intercoalition yooyu euh, wàllu ñu jox leen quatre-vingts députés dem ba Pape xool moom tamit ñu mu ne instant intérêt mooy ma dem fële te loolu la doon euh, loolu la Macky Sall doon xaar donc mu mu nekk quatre-vingt-trois députés donc quatre-vingt-trois députés tey ñu dem mu nekk quatre-vingt-trois quatre-vingts ak euh, ñaar ñoo xamante ne Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane Sall ñoom dinañu nekk arbitre wala ay supporters yoo xamante ne même bu dee parfois du ñu joué mais dinañu am seen baat seen kaddu bi ñuy yëkkati pour que au moins ñu mën a am euh, assemblée boo xamante ne bu amal njëriñ euh, askan wi la donc loolu message boobu la tey bu ñu demee ba ñu euh, waa Yewwi Wàllu intercoalition bi yaakaar na ñoom dañuy mën a am ay comment dirais-je groupe parlementaire yu xaw a bëri ba juróom wala ñeent wala ñett. ñooñu am na lu lalu ci biir ci ci ginnaaw loolu yëpp moo di d'abord lan mooy groupe parlementaire groupe parlementaire ñu ne benn association député la boo xamante ne euh, wala ay sénateur comme ñun amuñu ay sénat sénat dañ ko tas parce que dañuy waxoon pour ñu mën a jàppale ñu mën a dugal dugal xaalis boobu yëpp euh, ci inondation yi mais tey dañuy jàpp ni ñooñu ay député la yoo xamante ne ñoom dañuy am même euh, seen gis gis gis-gis moo méngoo donc gis nga waa Yewwi seen gis-gis dafa méngoo waaye wàllu seen gis-gis dafa méngoo mais ñoom intercoalition bi dem nañu ba seen euh, objectif mooy seen vision seen gis-gis dafa méngoo donc bu ñu demee ci euh, xaw a def ay euh, groupe parlementaire yu xaw a bëri donc c'est parce que xam nañu ni groupe parlementaire njëriñ bu mu am ci assemblée ñu ne création groupe parlementaire mun nañ ko def def action politique Euh, te ñi fa ñi ci bokk ñu signé ko membres yi yëpp ñu signé ko ñu rendre ko public waaye siiwal ko donc euh, groupe bu nekk dina désigner président ñu ne lan mooy président rôle président ñu ne d'abord le groupe bu parlons ak euh, groupe politique boobu am na ay ay ay ay ay ay ay tënk yoo xamante ne benn say boo xamante ne moom lañ ko jox benn kii ay prérogative xaw ma ni ñu koy waxee joolaa bëggee làkk euh, euh, euh, olof moom dina xaw a <laughs> voilà voilà donc am na ay prérogatives yu important ak yu ci ay fonctionnement bi fonctionnement assemblée nationale mooy am na taxawaay ci ni ni assemblée di doxee ñu ne président groupe parlementaire moom par force des sièges ci conférence des présidents donc conférence des présidents foofu la lu bëri di di xawee avant mu ñëw ci biir assemblée ci ay plénière ñu mën Euh, waxtaan am euh, euh, ku nekk wax li lu mu xalaat ci par exemple bu dee loi la ñu ne président groupe parlementaire mun na laaj benn scrutin public wala mu suspendre séance est-ce que yaa donc ay président la ñu wax donc ñooñu bu ñu demee ba bëri bu ñu nekkee cinq donc dañuy dem vote donc dans ce cas bu dee quatre la cinq la waa benn bu ñu demee ba am benn groupe parlementaire donc groupe parlementaire ñoom ñëpp bu ñu demee ñu ne non lii il faut ñu am am bu ñu yëkkatee président yi ñooy voté ci yeneen euh, fànn pour que loolu mun a euh, ba ba bañ bañ a euh, jàll. par exemple bi ñu yóbbee affaire mbirum góor jigéen foofu conférence des des présidents moom moo ne lii jarul ñu ci ak kii ñu ciy dugg yaa ngi comprendre donc c'est pour vous dire que njëriñ bu mu am ñu ne mais tamit foofu ci ni ñu bëree. Euh, dafa am solo parce que euh, nombre bi dafa dafa am solo ñu ne loolu dina tax ba ñu am temps de parole bu bu bu bu bu am solo c'est-à-dire que tey député bu dee da am deux minutes kese wala nga am ci am cinq minutes lu muy wax ak yow du du du du bokk donc c'est pourquoi ñoom bu ñu amee groupe parlementaire mën ñu toog kenn ci président bi ñu ne comme ñun ñëpp mënuñu wax jox nañu la suñu temps yëpp. yow ñu waxal nga waxal ñu ci lii ci lii ci lii et puis yaa ngi comprendre euh, temps temps temps de parole bi dina. Mhm. dina xaw a euh, gudd. yaa comprendre donc foofu foofu la euh, importance stratégie yooyu wàllu nekkee donc. il faut que Benno Bokk Yaakaar am benn beneen taxawaay par exemple. est-ce que kon tey jii euh, Famara si Benno Bokk Yaakaar euh, mën na def de même euh, que opposition bi liñ bëgg a def est-ce que mën na tas boppam def ay groupe parlementaire yu bari. yaakaaruma lu bari parce que yaakaaruma ko parce que tey bu ñu ko jéemee def tamit dafa mel ni yow mi nekk ci nguur yaay jël ci kële mooy opposition nga mën doxal yaakaaruma dinañ ko def maintenant. Euh, ci loolu ñoom ils ont euh, am nañu quatre vingt trois euh, yaakaaruma dinañ ko def parce que bu ñu ko defee tamit yàqul dara mais imaginer ñoom ñu am même gis da ngay wàllu moom quel que soit intercoalition bi ñoom dañoo am seen autonomie Yewwi ñoom tamit dañoo am seen autonomie donc fu nekk même bu dee seen gis dafa xaw a méngoo mais Benno Bokk Yaakaar ñoom benn say la ñu def depuis Euh, deux mille dix neuf ba tey wala deux mille dix sept ba tey ñu ngi am benn bloc tey bu ñu demee ba ñoom di bëgg a roy yooyu wàllu yaakaar na loolu te rafetul ci seen euh, par exemple seen politique léegi li ñu mën a xaar ci mm-hmm. euh, ñaar pôle yooyu yëpp wala ñett pôle yooyu mooy ñu liggéey ngir Sénégal jëm kanam parce que waa opposition yooyu wàllu di def ay yenn erreurs yi Euh, Sénégalais yi dinañu am benn euh, suspicion mooy wala dañuy moytu bi ne ñii bu ñu demee assemblée taxawaay bii la ñu am est-ce jar na ñuy jël seen benn leader wala ñaar leader euh, pour mu nekk président donc loolu piège boo xamante ne il faut que ñu am intelligence pour que ñu bañ a bañ a bloqué assemblée nationale assemblée nationale bu bloqué gouvernement bi mënul mënul mënul mënul munul kii mënul liggéey ci anam yu yu yu rafet donc opposition notamment Yewwi Wallu dinañ ci am euh, responsabilité donc il faut que ku nekk député bu nekk xam ni lii importance euh, euh, dafa am njëriñ pour sénégalais yi dafa am njëriñ pour Sénégal donc dinaa ko voté quelles que soient les conditions. donc sinon bu ñu ko defee dina métti donc li ñu éviter mooy ñu bloqué te blocage bi bu bu ñëwee ci waa intercoalition yooyu wàllu sénégalais yi dinañ leen mere trop yaakaar naa ñoom xam nañu ko. Euh, voilà beneen euh, ponk bu am solo di euh, soxal président Macky Sall ba léegi tabbagul premier ministre am mu daal di yéex ca ba ñu restauré poste premier ministre ba léegi pour yow lan moo waral ci sa jàngat ci wàllum politique Macky Sall yéex a tabb ab premier ministre boo xam ne actuellement ñëpp ñu ngi koy xaar. ma ne tey lu ñu mën a jàpp loo mënte analyser situation politique Macky président de la République moo la gën a xam. lu tax moom bu tey mu ngi lëwatoo ba léegi mu ngi lëwatoo mel ni mbër boo xamante ne euh, xam nga ñaar mbër da ngay ut stratégie donc ci lëwatoo nga ko yóbbu dans ce cas lëwatoo na ci euh, kii élection locale yi waxoon na ni après élection locale yi dina nommé benn euh, premier ministre ñuy dem avant loolu sax ñu gis ni am na ay événement marche yoo xamante ne ci mbirum Ousmane Sonko Euh, mu euh, indi fii ay euh, situation émeutes yu doy waar ba tiital Sénégalais yëpp yooyu dem ba am am am alerte mu woo jeunes yi ne leen dama leen comprendre voilà ci mbirum chômage bi ci mbirum xëy yi loolu yëpp comprendre naa leen mais Sénégalais yi ne ko xëy na waaw da nga ñu comprendre mais am na loo xamante ne dafa manqué parce que dafa des parce que sa nguur gi am na lu taxawaay boo xamante ne war na ko taxaw ba léegi gisuñu ko. ci lañu ko won par exemple ci résultat local yi mooy élection locale yi nga gis ci euh, euh, ville yu bëri te surtout euh, ville yu gën a mag vraiment opposition bi moo fa def perte moo fa gagné presque mu ne xëy na d'accord dinaa jëm a xoolaat encore mu jëlaat affaire bi nee na après élection législative élection législative yi ñëw encore mu gën a garaaw mu gën a garaaw de sénégale sorte tey dañ ko ne ñun bëggatuñu démarche bi leen di def nii donc Macky Sall fu mu toll nii moom kese moo mën a tontu ci eh, question boobu mais dinañu jëm wax ni tey li ñuy jàpp ci enjeu nomination euh, mini euh, premier ministre moo di euh, benn Macky Sall dafa bëgg a def troisième mandat bu dee troisième mandat la bëgg a def di ngeen gis ci nomination premier ministre mu teg foo koo xamante ne moom du am ambition pour mu nekk candidat mooy première chose moom mu ngi ut ci entourage ci biir Benno ak keneen sax ay technocrate kenn koo xamante ne deux mille vingt quatre euh, du nekk euh, du ne moom day nekk euh, candidat loolu bu dee moom dina nekk candidat ci foofu lañ koy xamee deuxième chose bi mooy bu dee moom du nekk candidat dina ut koo xamante ne au moins dina mën a dajale continuer boole Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar bañ a tas booy parce que dégg nañu ci ay profil gis nañu fi ñu bëri ñu ngi ay nit génne ko tey ci euh, euh, ci euh, ay média comment dire quotidien yi di joxe ay profil mais loolu yëpp Macky Sall moo mun xam ni parce que moom bu dee du dee président il faut mu ut koo xamante ne xam na ni kii profil mun na gagné parce que bu fa tegee koo xamante ne xëy na sax sénégalais dañ kaa rus mais amul benn charisme wala amul benn taxawaay bu dëgër pour que mu mun a boole Benno Bokk Yaakaar changer li nekkoon fii mën a dem ci leneen dina xaw a métti da ngay gis ni par exemple wuutu Abdoulaye Wade dañoo gis ni Macky Sall dafa tey mu ne ñu ne comme moom dafa liggéey ci wet wala ci peggu Abdoulaye Wade moom moo ko formé presque dañoo bëgg Abdoulaye Wade dem parce que amoon na beaucoup de scandale léegi Macky Sall la ñuy gis parce que moom dafa tey Macky Sall ci dynamique boobu la nekk il faut que moom mu xool koo xamante ne bu dee moom dafay bëgg nekk président dina métti. mais mu am koo xamante ne premier ministre boo xamante ne xëy na moom après dina mën a euh, dem ak benn Bokk Yaakaar mën leen yóbbu ba deux mille vingt quatre loolu mooy euh, jàngat bi mu mën a jàng ci euh, retard bi muy def nii pour euh, nommer euh, question Famara Gnassi Macky demoon fële ca Mali seeti Assimi Goïta est-ce que mën nañu jàpp ni visite bu nu mel réussite la est-ce que Macky li ko taxoon a jóg réussir na ko waaw wala déet ci jàngat. ci li ñu mën a jàpp ci visite chef de l'État mooy d'abord moom mooy président de l'Union africaine. Euh, yéex na ko def mais def ko baax na tamit parce que euh, bañ ko def ni euh, kenn du ko comprendre parce que moom moo jóg fii en tant que président Union africaine mu ne day dem Russie daje ak Poutine pour mu ñaan ko ne ko que blocage blé bi blocage maïs bi ak na ba ñun waa Afrique ñu ngi am ay problème te dina nekk ay problèmes yu yu yu tar ci suñu dundin donc euh, maa ngi lay ñaan vraiment ngeen lever yenn restrictions yi pour euh, blé euh, Ukraine mën a génn seen blé tamit mën a génn kooku bu defee loolu ku gën a sori nekk beneen continent nekk beneen dëgg yow nga am sa dëkkandoo boo xamante ne même bu dee dañoo yëkkati dañoo génnee sanctions yi ñetti yooyu te ay sanctions yoo xamante ne Sénégal dafa am dafa part xaalis bu bu bu takkoo takko donc xaalis boo xamante ne ay milliards la nga koy ñàkkee nii te yow nga gis ni européens yi ñoom bi ñuy euh, sanctionné euh, Russie am na ay dëkk yoo xamante ne ñoom dañu ne mën ngeen sanctionné Russie mais kenn bu ma mu dugg euh, dugg dugg ci biirum question pétrole ak gaz parce que pétrole yooyu bu ñu ko sanctionné am ci pétrole ak gaz mooy ñun doy nañu donc ñoom ñu am intelligence ñu am gis-gis bu xóot bu sori ci ñoom seen population ni ñu leen sàmmee ñun africain kese la ngay gis koo xamante ne sa dëkkandoo mu ngi am ay mu ngi nekk ci ay problème yu tar nga taxaw fële au lieu nga euh, dimbali ko taxaw fële di raconter sa sa sa xarit yi que waay yi añul démb reerul euh, euh, barki démb donc yooyu il faut que ñun ñu génne te loolu yëpp da gis ni Afrique francophone la mooy colonie yi France colonisé ñoom ñoo nekk ci affaire boobu ban lan ban ban loxo la France am. Macky dem na euh, Mali fekk fa nit koo xamante ne Assimi Goïta moom nee na il faut que lii dañ Macky Sall ba léegi waxagul lenn wala action yu muy posé euh, niiroowul koo xamante ne dafa bëgg a dagg du nekk suñu diggante ak France kenn newul daf koy dagg mais xoos ko tuuti pour que nit ñi xam ni lii bu ko bu continuer nii dina dagg. Famara Niassy Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi lay euh, gërëm madame Moreau. voilà may fàttali ni analyste politique nga jaajëf.